Tuubaa nee na sunnay koor mooy yow aji xelu ji mooy gaaw a dog fu la fekk na nga dog soo doon dem ci yoon wi tey nga jëm Tuubaa dog jot amuloo ndox amuloo dara waaye xam nga ne bi jot nga xool sama noo def yéenal dog ne ne dagg dog naa koor gi léegi foo wàcc rek julli dem sa yoon ba ba ngay jot ndox nga naan waaye bul toog nag rek sa koor jëmale fu gën xamul loolu du sunna beneen bi des xadiis buy saxal li sëñ Tuubaa wax arkaanul islam xams shahadatu an laa ilaha illa buniyya al islam la hadis ba tàmbale shahadatu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa anna muhammadan rasulullah wa itaay salaat wa itaay zakat wa sawmi ramadan wa hajjil bayt liman istataa ilayhi sabila yonent bi nee na juróomi ponk yii lañ taxawale lislaam ginnaaw bu nit ki waxee laa ilaha illallah muhammad rasulullah yi koy tax a ci lislaam te mooy ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah mooy ngay julli soo amee wërsëg ngay génne asaka su weeru koor dabee la nga fekk nga dunta amuloo ngant nga woor ko te aj màkka soo amee xaalis mu ne ka xukmi sawmin wa tahaaratin salaat fardan wa naflan wa ka xajjin wa zakat xoolal ci benn bayit la tënkee juróom yépp loolu la sëñ Tuubaa mu ne attey julli attey laab mooy julli farata yaag naafila yaag ajak ajak euh, joxe asaka kon loolu mooy li jullit bi war a xam boo ñëwee ci yéene ji nag xadis bi ci rot yaxya daf ne xaddasani yaxya an malik an naafi an abdullahi an an ibni omar mooy abdullahi ibni omar innahu kaana yaqul laa yasuumu illa liman ajmaa siyaama qabla alfajr nit su fekkee fanaanoowul yéenay koor suba du moo tax ñu ne kon faw nga fanaanal yéenay koor gi nga fanaanal yéene koor gi waaye sañoo toog ba fajar nga ne damay woor ci bés bi déedéet bés booba nag bu dee weeru koor da ko woor yow jullit bi waaye bu koor nga jotee da ngay fay su fekkee ne da ngaa def ta'wilul xarib te mooy da jàppoon ne wala da ngaa woon ne mën naa toog ba waxtu wii ma yéene koor ñàkk xam beneen bi ci des mooy nga taawile ko taawil boobu bu boobaa may nañ la nga woor mat waaye buñ koree da ngay fay bés ba waaye bu fekkee nag taawil baid la su boobaa da ngay kafaara ba na fay bés ba kon nañuy fanaanal yéene soo naree woor suba soo yéenee nag bi koor gi di dugg rek diiru weeru koor yi mën na ko yóbbaale lu dul nag nga tukki fi dog walla muy soxna mu am fi ngant wala nga tawat yooyu dangay ngay yeesalaat yéene ji su fekkee dem nga ba yàlla mayaat la mën a koor ga nga koor kon taajiral fitr bu jant sooyee rek nga daal di euh, li iftaar nga daal di jël say ndogu daal di jëfandiku yonent bi daf laa yasaalu naasu bi xayrin maa ajjalul fitra nee na nit ñi duñ dañ di nekk ci yiw li fekk ñi ngi gaawee dog bu dog jotee ndax bëgguñ teg ñu continué noonu ba julli timis jot moo tax ñaari ngeen di gis ñi bàyyi ñaari minit nit ñi dog ba noppi ñu soog a taxawal julli gi wala ñu soog a nodd kooku Malik ibn Abdurrahman Malik moo ko jëlee ci jëlee ko ci Abdurrahman ibn Harmal al-Aslami mu jëlee ko ci Sa'id ibn Musayyab ci borom xam-xam yi daan jëlee la bokk ndax dund ak saxaaba yi te daan laajte zahru ramadan alladi unsila fihi alquranu hudan linnaasi mooy weer woo xam ne ci la yàlla wàcce alquran ci weer wii ci la yàlla wàcce alquran njub ci alxuraan la nekk laylatul qadr xayru min alfi shahrin tanazzalu almalaikatu wa ruuxu fiha bi idni rabbihim kulam salaamun hiya xatta matlaa il fajr yàlla moo ne inna ansalnaahu fi laylatil qadr ko yàlla nga xam ne yoon bi moo ci wax ne wa man saama ramadaana imaanan waxti saaban xufira lahu ma taqaddama min sanbi ma taaqara moo tax ñu ne xadis waxaat moom yonent bi ne su koor dikkee day may nit ki maxfira day may nit ki rahma day may nit ki itqun min an naar loolu koor rek moo ko am beneen ko weer amu ko fukki fan yoo yàlla goreel ñëpp ñu woor ci sawara yàlla bu kenn dugg dugg dugg dugg dugg sawara amin yàlla mën na ko yàlla lim am di ko joxe du wàññi dara ñeneen dinañ judduwaat te du fees mukk ci àdduna ndax àdduna feesut ñu fi ne alxadis jaabir dafa wax ni ibnu abdullahi radiallahu anhu saala rajulun rasulallahi salallahu alayhi wa sallam araaytu in sallaytu salawaati almaktubaati wa sumtu ramadaana wa ahlaltu alxalaala wa xaramtul xaraama walam asdad ala salika shay'an a adxulul janna xaala nabi sallallahu naam nee dafa benn waaye dafa ñëw ne yonent bi sallallahu waaw su ma dee julli mu ne ko waaw julli yiñ farataal ci man weeru ko dikk ma woor ko li yàlla daganal ma di ko sàmmoonteeg moom ci li may liggéey ak li may lekk waaye araamal li yàlla xaraamal ci man ba du ma kenn du ma ci séen kenn du ma ci teg sama tànk ndax danaa dugg aljanna yonent bi ne ko waaw waaw boo koy def dugg aljanna kon ndeke aljanna caabi aljanna ngi ci suñu loxo saxalal julli koor a ngi ni koor ko alquran ak koor yonent bi nee na dañuy ñëw yowmal xiyaam mbooloo mi ne tirim nii ñu ñëw ne yàlla diw mii day diiru muy dund ci àdduna saabu weeru koor wi dikkee man maa ko daan xañ lekk ak naan ak jongamam ya lépp da koy bàyyi ngir jëm sa jëm yàlla tinu ko jéggal ko man na am xëy na mu amoon problème mu ay àq ak ay yu mel ba mu xaw a dis ci moom mu ñëw tinul ko waaye jullit bu amul loolu kenn du ko tinu yadxulul janna bi xayri xisaab moo tax góor góorlu ci suñu diggante di teg xàq yi lu am solo la mu ne tuftaxu abwaabul janna weer wii la ñuy gratuité aljanna ku ne xam na li ñuy dox dugg leen gratuitement dugg leen weer yi bu xasee tab bi bés bu njëkk ba ba bañ naan taa feer weeru jàmm ca sawaal ba jullit bu fi faatu rek dañ naan la tabbil aljanna ngir neexale la ko ngir màggaayu weeru koor moo tax ku xam weeru koor danga nga sàmm ormay weeru koor sàmm ormay weeru koor te sàmm julli ormay julli nag ñàkk xam la weeru koor lu màgg-màgg nit ñi rek la jullit yi rek la nit ñi la fonk nit ku dul fonk doomu aadama su yàlla cëppiloon sax doo ko fonk ana weeru koor kenn mënu ko téye ñi yàlla wàcce ñuy weeru koor tey sàmm ñoom ngay wormaal mu jeex tàkk loolu mooy dëgg-dëgg warmaal sunu borom wa ab abwaabu naar waaye dañuy ferme buntu sawara mbokk yi xool leen loolu yàlla ci jëm boppam li ko nit ki di def ak ni mu toll mu ne su weeru koor dikkee day maggaay weer ko tax damay fermer porte sawara yi kon li muy firi bu doon nit da ngaan bi xaddi nazar an jami afalihi aw asayiatihi lépp loo xam ne lu def la jégal naa ko loolu lay firi ci ko déggee dëgg-dëgg kon nag koor weer wu màgg màgg màgg la kon noonu la ko ab jullit di def ci ci ci xolam watu safadu sayatin ñu tënk seytaane seytaane kon léegi ku wóorut sa bànneex ak sa bakkan rek a tax waaye dara lu lay gàllankoor taxut mooy su noon bi nga xam ne yàlla moo nañu jàpp leen ko def ko noon muy seytaane kon nag koor a ngi noonu ak ak màggaayam farata yaa ngi noonu sunna yaa ngi noonu bokk na ci lii tax nga xam ne ab juliti nay wattandiku topp bu ne gaaw a dog nga tëb rek jant bi soogu nga naan nañ dog de waxuñ loolu de na nga dem ba xam ne weer yu dog na fii boo fi ñëwee danga nga laaj ci heure imaam a ngi fi imaam Cheikh Mamadou Bachir a ngi fi imaam Cheikh Khadim ngi fi nga laaj ban heure la ñuy dog ñu ne la heure sangam la ñuy dog ab julit day laaj diineem waaye tëb montre bi waxagut ndax télé bi waxagut ndax waaja waxagut de sa yoon nekku ci ilimaan yi loolu rek lañ fi nekk ilimaan imaam mooy ki nga xam ne moo lay jiite ci diine kon war nga laaj ba xam heure bii la ñuy jàpp koor heure bii la ñuy rompi moom la ñuy dog koor nga jëfandiku loola teg ko ci ndigal rawatina nag bu fekkee ne yàlla dogal na jànguloo woon bul jëf dara ci nattale ak ak ak yu mel noonu déedéet yonent bi sallallahu alayhi wasallam imaam al-Qastallani radiallahu anhu dafa wax ne haasa taqdir laa yajuusu l umuma linnaasi laa yajuus li umuma annaasi illa al axs bihi wa in axasa annabiyu sallallahu alayhi wa sallam li itlaa'i llahi iyaahu ala xaqaiqi l umur bu ne teel a dog yéex a xadd nga ne naa yéex xadd ah fajar gi nanga mu jékki ba gis ba tuwaarkalla waa ji naan asalaatu xayru min naw nga naa dama doon dama doon jëfandikoo sunna de waxuñ la loolu de dangay dem ba xam ne waxtu wii lañ nekk waxtu muhaddab waaw ñoom nattale nañ ci loolu mooy waxtu wi nga war a jàpp ak li nga war a dog kon nag koor dafa am ay digle ak ay tere am yuñ sib am yoo xam ne maye nañ ko ca am yuñ ca sopp waaye am na ci yoo xam ne ku ko def ñu daan la daan yu métti te mooy kafaara kafaara nag lu métti la bokk na ci yi nga xam ne dañ ko sib bokk yi ñun ñëpp ku ne xam na ne yàlla daganal nañ ñu suñuy soxna mu ne su woor jotee téel say loxo ci moom mën nga am benn néeg am sa benn lal nga liggéey wàcc di dallu ngeen tëdd bu ngeen dendee bu fexeel ba sa loxo bu ko laal bu sa yaram bu ko laal surtout nag su fekkee ne yow xam nga sa bopp ne mucculoo ci bànneex maanaam da nga nekk nit ku sensible dafa am ñoo xam noonu lañ mel bul xalaat nee na al lams wal fikr bul ko def bul xalaat ci moom jëme bul ko raay bul ko laal parce que mën na laa indil fitna su boobaa lan lay isaa salima min xuruji l mathi wa ahra al mani loolu la borom mursid wax nee na su fekkee ni mucc nga ci ne saa su nekk mën ngay gis ndox yi ratax yooyu di génn sa sa sa kanam rawatina nag su fekkee ne soo ko defee soo amee yëg-yëg dootul mën a téye sa bopp li fekk demoo ba am yëg-yëg bu mag mu ne loolu bu boobaa dafa xaraam ci yaw soo ko defee da ngay kafaara ñaari weer ba noppi nag fay bés ba su fekkee ne nag muccloo ci su boobaa dañ koo xaramal ci yow maanaam su la la yow mënoo téye sa boobaa dañ ko xaramal ci yow xalaat baag laal baag taati asbaabal jibaal lépp booleem luy sabab loolu rek dañ ko dañ ko xaramal ci yow xool nañ la an tere nañ la an nazar wal qubla wal mu mubaasa wal mulaaba lépp dañ ko sib di xool jigéen naanal say bët ci jëmmam lu dul koor sax tere nañ ko rawatina koor dañ ko sib fóonante raayante foxante lépp dañ ko sib dañ ko sib su ko defee nag kon ginnaaw yàlla dogal na yaa ngi bàyyi xel ne lii sib nañ ko ci yow sib nañ ci jigéen ji it mos la mel ni am na doom ji ndaw naa ko xool ba xam suukar si saf naam déet lem gi saf naa naam déet wala daakaande ji saf na wala safut ngay jënd dara ne ah xaaral ma xool ndax na saf na sa loolu dañ koo sib ci koor ndax lañ cee bañ mooy mu dugg ci sa ci sa ak soccoo socc tooy lañ ca bañ mooy mu seet dugg ci sa biir ba tey ndax mënoo ko téye moo tax may nañ la nag nga faju soo tawatee allahuma bu fekkee ne la ngay fajoo dañ la koy def ci sa bi yaram mu seey dugg ci der bi atte booba la ulama yi jox fuqaaw yi lu mel ni pikiir boo xam ne loola du ci biir der bi dafa nekk ci biir yàpp wi mu fekk ko fa nga xam ne antivirus la da ko yàq waaye su fekkee lu mel ni loo xam ne boo ko pikiiroo dafa am xorom wala dafa am nangam nangam muy dugg sa biir tere laa lekk tere laa naan su boobaa dañ la ko tere ba nga dog ba pare ba ak bala ngaa xadd ñaar yooyu wala boo xaddee ba noppi te bi jotagul heure yooyu lañ ne ko may nga def ko te doy na sëg lu mel ni tamit soo boros adam dañ koo sit ndax boros pat bee tax bu fekkoon boros bi rek la mën nga ko def comme atteb lu wow la am waaye pat bee tax soo ko defee sa gémmiñ dafa am mant mën nga toog toog rek yëkku say put loolaa tax ñu tere tuufu tuufaay boo xam ne boo toogee jaaxaan da ngay dégg mu sóorax ba sa put mu saf boo ko defee imam Malik day wax ne dangay fay bés booba su weeru koor ba jeexee nga da ngay koor continuer su weeru koor ba jeexee nga fay bés kon yooyu yëpp ñu bàyyi ko xel bu baax waaye su fekkee nag docteur bi war na leen la déet yooyu yëpp amu ci su su boobaa mi ngi mel ni ki tawat nga xam ne moom docteur bee na ko bul woor kooku am na ngantul su fekkee wér na ci biiru balaa weeru koor wee jeex mu continuer koor te bés yam am mu fay ko su fekkee wére di ga da ko dal ba ca koor gële di dellu siwaat mu wér na koor koor googa su koor googa jeexee gam amee woon ca koor daaw ga mu wàññi ko te di ko fay tey lele ndax amoon na ak wér waaye yàlla dafa dogal ah, mu toog ba weeru koor wi di jub mu xalaat ne su wooree du am doole waaye su fekkee ne nag moom biñ ne suba la koor la soog a wér docteur yi ne ko mën nga su boobaa du lele day fay koor rek li liy indi sabab si mooy nga wér ba noppi nag xaw a saggan ba weeru koor wa dugg nga woor weer woo bëgg a fayaat kon nag yooyu sib nañ ko jéggale nañ nag pënd pënd jéggale nañ ko ni ki ku mel ni menuisier buy liggéey di dagg wala kuy dóor weñ gu weñ weñ ak weñ ñu suñ mbokki menuisier métallique yi wala tëgg yi walla kuy yëlëb ay dar wala kuy liggéey ci ay tiis yi pënd yooyu yëpp jéggale nañ ko soo ko soxla woo weñ sarax yu mel noonu dañ ko jéggale ci koor gis ne lu mel ni wann say lor lor loolu dañ ko jéggale waaw loolu dañ ko jéggale ndax nit dañ koo bindaali moo tax euh, du du yàq koor kon nag am sa doom doom ji su bokk jigéen ñi doom ji kat daa weex te nanguwut kenn te su ma lekkut duma am soow faw ma lekk kon soog koo nàmpal su fekkee léegi nag jamono lii léegi lii la léegi daanaka la ma Mali waxoon day daal di ñëw daf ne woon gis naa ne ki nga xam ne moom dafa feebar dafa ëmb kooku daa feebar kooku mën nañ koo may moom mu dog waaye day fay koor képp moo ko cay fekk waaye ki nga xam ne moom day nàmpal soo lëggatee ba ñu woree nay lele xam nga lu tax ngay xam ne Malik faqih la mooy xool leen meew mi fi ni bari na liir yu juddu seen yaay faatu meew mi lañ leen di dundale mu ngi ci mu ngi ci mi ngi ci pharmacie yi waaye nag benn sart lañ ci joxe mooy bu fekkee ne ki ngay nàmpal faqiir la baayam nekk maanaam ku ñàkk baayam amut yaayam amut amut luñ jëndee meew 3000 lay jar am na koo xam ne fi ne nee na loolu day dara waaye wallahi am na koo xam ne balaa xëy dépasse dana dañ lu ne day yenuy saako mbaa mu radu mbaa mu fóot ñu di ko fay dee leen dimbalee a taawun alal birri wa waa am na solo lool waaye kii yàlla may wërsëg nay génne ci alalam di joxe tey seet ñi koy yelloo mu dee leen ko jox waaye tabaarakallah am na solo lool joxe am na solo waaye xam ñi ngay joxe am na solo ñu bare ngi fi ñoo xam ne tey koor gi bu duggee dañuy fu ne dañu fa daw jëm ak suñ mbokk ñi nga xam ne dañuy watatu ci sari yi di yalwaan ñu leen dimbale di leen dimbale ndax ñoom ni ñun lañ bëggoon a mel yàllaa leen melal lañ leen melal jëf